wayu dammu def na tàpp maanaam def na boole baqiyatul hirqi desiiti reen ba mbaa desu reen ba wa in taraaxaa ak doonte yéexoon na alxamalu liggéey ba laa xirqun waaye duñu tàpp ab reen li aaxara jëm ci beneen kan yañ daan gase wurus daan def reen mu ne nag bu ñu toppee benn reen baxas ca gas lu mat nisaab moo xam wurus la moo xam xaalis la topp nañu reen ba gas ko ba génn ca lu mat nisaab ñu wax ne asaka war na ca gannaaw ba luñ ca gasaate lum néew néew ñu war a seet na asaka ja war a toll ñu génne ko waaye nag duñu boole ñaari reen buñ toppoon reen bee gas ko am luñ ca génne waaye matul nisaab ñu gasaat beneen reen moom it lañ ca gase matul nisaab te buñ leen boole woon ñoom ñaar mu mat nisaab du tax asaka war faaw rek benn reen bu ne la ñu topp ba la ca génn mat nisaab asaka door caa war waaye nag nga seetlu la mu wax tàppe googu mu wax mooy benn reen bi moom buñ ca gasoon loo xam ne matut nisaab bu ñuy raxa gasaat nag ba teg ca diir bu yàgg-yàgg du tee buñ gasaatee loo xam ne buñ ko booleeg la njëkkoon a génn mu mat nisaab daañu ko boole ndax loolu ci benn ren bi rekk la benn mbel rek mën naa am lu ëpp benn reen te it lañ gasee ca reen bee ak lañ gasee ca reen ba ca des kenn du leen boole reen bu ñu topp nag ba génne ca lu mat nisaab moom war caa génne asaka te it buñ ca gasaatee lu matul nisaab bi dutee ñu seet la ca war a génn ñu génne ko ca ndegam nag ñaari reen yu bokk benn mbel desu leen boole kon jëlale nañu yaari mbel yu bokkut kon ku ne xam na ne desu leen boole watu xammasu def na juróomeel nadratul xay ni selliiti kee karrikaas ni kirikaas mutlaxan moo xam lu man di doon moom rikaas ak ndax mat na nisaab wala matul nisaab nadratu bayit noonu la mel moo xam mat na nisaab moo xam matul nisaab walaw ka ruxaamin ak doonte day lu mel ne toju ruxaam aw wajadahoo wala doonte for na ko mooy fekk na ko rek xabdun ab jaam aw kaafirun wala ab yéefar illaa li kabiri nafaqatin ndare ñeel aj rëyi dépense maanaam ay fere aw xamalin wala ab liggéey fii tahsilihi ci amalam fa zakaatu kon asaka rekk cay war walaw karu xaamin ak doonte day lu mel ne dojuru xaam dojuru xaam mooy liy wax maar bar loolu ni nga ko delloo ci arrikaas arrikaas moom mën naa nekk wurus mën naa nekk xaalis mën naa nekk lenn lu bokk la ñoom ñaar niki doju ruxaam dax moom moom arrikaas nag dif nu jaahiliyin mooy lu ñu suuli jaahiliyu baatub jaahiliyu daañ ko firee cadd waaye ca cosaan dañ ci daan jublu ku dunde ci jamono joo xam ne ab yonante wéyoon na te beneen feeñaatagut waaye fii moom baatub jaahiliyu da ciy jublu xëyru muslimin wa dinniyin kurul jullit du yéefar buñ façon teeloon walëri rek ci ci barab bii moom ci àtte bi ñu wax jaaxi li yu lañ koy tuddee wa kuriha sibéef na xafru xabrihi gas bàmmeelam ba wa talabu ak sàkku alal fii ca bàmmeel ba wa xummisa juróomeleef na rikaas ca wa baaqiihi te aji desam ja li maalikil ardi ñeel na aji moom suuf sa wa illaa ndem suuf sa amutoon boroom nag fa li waajidihi kon ñeel na aji fekkam ja wa difnu muslimin lu ñu suuli ab julit aw dimmiyin wala kuñ fasantil walëre lu xatatum atte por lañ koy atte nadratu ba tey dañ koy génnee ci suuf muy wurus mbaa muy xaalis waaye li ko wutaleeg mbell moom day nekk morceau bu set wecc bu rafet bu foor nga xam ne amul dara loo cay defaat te nag wurus ak xaalis ba ñuy door a gase ca mbell ma moom day aajowoo ab liggéeyaat moo tax buñ koy xamle dañuy wax naa alqitxatu min aldahabi aw alfiddati alxaalisa ay allati laa taxtaaju li taxliis ku yàlla xéewale lu selli noonu ci wurus ak xaalis doonte sax batul nisaab danga koy def juróomi xaaj jox benn ba ilimaani jullit ña ñu def ko ci maslaa jullit ña gannaaw buñ génnee nag juróomeel ba joxe ka nga xam ne moo génne woon wurus wu sell woowee ñeenti xaajo des moom moo koy moom arrikaas addis ba dane wa fi rikaas yi alxumusu arrikaas mooy ku dox ba yem ci alal joo xam ne gisuñu ca menn màndarga mi wane ne ab julit mas na koo moom wala yéefar buñ fasanteeloon wëlëre ña njëkkoon lislaam nag dañ daan denc seeni néew di ca suulaale alal mel ni sax fii ci réew mi séréer yi daanañ ko def moo tax ñu tudde ko lu ñu suul waaye waaye loo xam ne itam suuluñu ko dañ koo fore ci kaw rek te gisuñu ca menn màndarga mu wane ne ab jullit mas na ko moom mbaa kuñ fasaloo wala rek rikaas la waaye rikaas nag moom duñ seet ba xam day wurus ak xaalis mbaa day leneen doonte sax aw xeer la wu am njariñ rek wala xeetu gët wala xeetu marchandise wala ka ko for nekk dib jaam mbaa mu dib yéefar moo ko mu doon gor mbaa muy jullit ñoo ci yemoo ñu ko defee juróomi xaaj rek benn xaaj ba la ñuy jox ilimaan jullit ña mu def ko ci maslaay jullit ña waaye arrikaas ak annadratu gannaaw ba ñemee ci kenn ku ci ne lañ ca war a génne jox ko ilimaan jullit ña mooy juróomeel ba maanaam bu ko defee juróomi xaaj benn xaaj ba la ñuy jox ka jiite jullit ña mu def ko ci maslaa jullit ña bu dee rikaas moom kan ma war a moom ñeenti xaaj ya des am nañu ne wax ji gën a wóor mooy buñ ko génnee ci suuf suuf sañ ko fekk ka ko goroon ci cosaan ndegam am na ku ko goroon mbaa ka ko donne woon ca moom ñoo war a moom alal joojee bu amee ku ca nekk moom ko moomee gu yees rek nit ki dañ ko ko may mbaa mu jënd ko du tax mu moom ko ka goroon suuf sa ci cosaan mbaa ka ko donne woon ca moom rek mbaa seeni sëf rek ñoo koy moom am na lu ñëwee kañ fekk suuf sa ci loxoom ci yooyu jamono rek moo xam ne koo am ci jënd mbaa ci may gu yees kooka kay moomoom alal joojee moom la sarabina wa baaqihi li malikil ard bi ixyaain aw bi irsin minhu laa li waajidihi wala li malikiha bi shiyaain aw hibatin bal lil baaixi al asliyi aw il waahibi فإن علم وإلا فلقطة وقيل لمالكها في الحال مطلقا kon daal say boo takk ne rikaas moom suuf sañ ko génnee ka ko moomul ci cosaan mbaa ka ko doonne woon ci moom rek suñ ko xamee kookaa war a moom alal joojee te ñu génne juróomeel ba jox ilimaan mu def ci maslaay jullit ña su fekkee nag xamatuñ kooka waaye jàpp nañ ne ba tey ku ko toppatoo xam ko day jàpp ne kon rikaas ji mook lu ñu for ñooyamoo ñu àtte ko àtte por di ko xamle ba xam borom dana feeñam ndeet mooy daañu mujj xam ka moomoon suuf sa ci cosaan am ndeet su fekkee ne suuf sa musuñ caa xam lu may moomeelum yàlla kon nag ka fekk alal joojee for ko ci kaw mbaa mu génn ko ci suuf moom moo ko moom na génn juróomeel ba jox ilimaan jullit ña daal di téye ñeent ya mu ne nag bu fekkoon ne loolee ñu génn ci suuf mbaa ñu for ko dañ caa gis màndarga mi wane ne ab jullit mas na ko moom mbaa yéefar bu ñu fasanteeloon wëlëree kon dañuy jàpp ne mook lu ñu for ñooyamoo ñu war koo xamle diiru at ba xam boroom dana feeñam ndéet su fekkee nag dañoo jàpp ne daal lii moom yàgg na yàggaay boo xam ne boroom moom du neex xamati ci les ci àdduna kon nee nañu ka nga xam ne ne moo ko for say boo rek mu téye ko moomale ko boppam am ñu ne su fekkee baytu maal am na muy kees ga jullit ña bokk dama nekk ci loxo yi ka leen jiite kon naka yóbbu ca baytu maal ndax dañuy wax naa kullu maalin juhilat arbaabuhu fa mahalluhu baytul maal jëpp alal joo xam ne ñu umpale borom dañ ko yóbbu baytu maal ñu ne nag bu fekkee ne ñoo dem a dem ba baytu maal amatut mbaa bu amee itam ña ko yore duñ jubal def ca la ca war alal joojee kon saye boo ñu saraxe ko ak jum man di doon suñu nee itam muy al nadra muy al rikaas dañoo war a génne juróomeel ba jox ilimaan juróomeel daa bari ñu ne nag bu fekkoon ne ba nga koy génne da caa sonn lool mook njabootam mbaa boog da caa fere fere yu bare bari di ca fay ak fayaat ba mu génn kon nañ ko woyofal ne ko joxeel rek lu tollook asaka xam nga asaka moom daa yomb ndax loo def fukki xaaj dafa benn xaaj ba ñeenti xaaj joxe benn ba daa wuuteeg ab juróomeel ab juróomeel moom daa gaaw bari ñu ne nag bu fekkee ne ba muy génni rikaas ja mbaa wurus wa mbaa xaalis bu sell boobee da caa sonn lool moom ci boppam moom njabootam mbaa da caa fay lu jafe-jafe ñu woyofal ko ne ko joxe jul tolloog asaka rek doo joxe ab juróomeel am na nag nettali buñ jëlee ca Maalik boo xam ne bu mat a jàpp la ñu ne nee na woon su fekkee ne la ngay génne ci ab xumus ci rikaas joojee boo ko joxe ilimaan ja te ilimaan ju dëng du ko def ci njariñ jullit ña kon da nga koy saraxe mu teg ca ne ba tey buñ dee miraas mu des gisuñu kenn kenn ku ko war a moom te baytu maal amut mbaa boog bu amee it ka ko yore maanduwut ba tey moom it loolee des nañu ko saraxe moom sax teg na ca foofu ne jamono yam doon waxe gisutoon baytu maal bu maandu fu ñuy lekk alal jàmbur rek la gis kon day mel ne bu amoon ko génn àdduna te gisuñu kenn kenn ko war a doon ci yoon mbaa boog ña ko war a doon ci yoon duñ jeexal alal te it bokkuñ ci ña ñuy delloo des wa kon loolee see boo ñu sarax ko ña ca loru jëpp alal joo xam ne itam noonu la demee rek see boo ñu seet ña ca loru ñu sarax leen ko dana wa naqala al imaamul baaji xan xiisa xan ibnil qaasim xan malikin fi muxtasar ibni chaban ida kaana al imaamu jairan yuxriju alwaajidu lahu xumusa fa yatasaddaqu bi wala yadfahu ila man yaxiitu fiih wa kadalika ma fadala min almaali an ahli almawaarithi wala aclamu alyawma bayta maalin إنما هو بيت ظلم وكذلك الحشر بنينا نك ña nekkutoon ci lislaam daanañu denc seeni néew di ca defaale alal ak sax gannaaw bu lislaam feeñee itam ña nekkoon ci réer daanañ ko def teewul nag sib nañu nga dem ci bàmmeel yu mel noonu ne naa ko gas ndax ma fekk ci alal loolu daal dafa wuuteeg mbañum rus nde fu ñu denc ab jullit moom wax nañ ci gannaaw lay àtte ba day araam kenn di ko gas lu may daa yàgg-yàgg ba ñu xam ne sooy na ñu bëgg ko gas nag ngir denc fa keneen waaye lii nag mooy armeelu yéefar mu defee ne bañ koy denc dencaal nañ ci alal mooy na ko gas nag ndax jël alal joojee loolu daal lu ñu sib la ndax sori naag bañum rus maa loo xam ne la faddaxoo yàbbi na ko dëq na ko albaxaru géej ga ka xam bari ni ki xam bar faliwaa ji di xii ñel na aji forom ja bilaa tax miisin ci ludul ak juróomeel fa in taqaddama ndéem jiitu woon na xale yi ci moom milkun ak moomeel fa in kaana kon ndéem nekk na boroom xar bi yan di xare aale mooy yéefar boo xam ne amuloon mu wëllëre fa kadalika kon naka noonee la way jaahili yan fekke dafa nekkoon dib ceddo walaw bi shakkin ak doonte ci sikki sàkk la fa rikaasum kon mu amee atteb rikaas wa illaa ndéem doon lu ab caddo moomoon xanaa ab julit mbaa ku ñu fa salolore moo ko moomoon fa luqa tatun kon atte por lay amee loo xam ne géej gi da koo dëq sànni lu mel ni xeetu xambar xambar dañuy wax ne téybul maaruuf gëtt la gu ñu xam ñu koy wax ambar wala ambar gris lépp loo xam ne géej da koo gëq sànni moo xam xeetu ambar boobu la wala lu lu mbaa marjaan wala leneen lu géej gi gëq sànni tamit alal ju doomi aadama mën a jariñoo doonte sax ay jën rek la yum jekki-jekki gëq sànni ku ci njëkk a yam te gis na loolee kenn mësu koo moom gisuñ ca menn màndarga mu wane ne kenn mas na koo moom kon ka ci yam rek ka ci njëkk a yam rek moo ko moom nee ñu sax bu fekkoon ñett dañ koo séen di ko njëkkante ñaar ñuy xëccoo ba kenn ka njëkk leen te it moom kenn ka moo moom loolee su fekkee nag loolee géej ga dëq sànni xool nañ ko waaye gis nañ ci lu wane ne ab julit mas na koo moom wala yéefar buñ masoona fasal wala rek kon nañ koy jàppe ne for te waxoon nga léegi lan moo di àtteb por buñ ci gisul nag benn xàmmikaay bu wane ne ab julit mas na koo moom mbaa yéefar buñ masa fasal wala rek kon xëy na ku bokkoon ca njëkk ñaa njëkk njëkk lislaam wala sax ab yéefar boo xam ne am ñu ma wëllëre rek moo ko moomoon li mu ne walaw bi shakkin daa bëgg a wax walaw bi shakkin fii jaahiliyatihi buñ xësee xam ne rek loolee géej ga dëq sànni amul menn màndarga mi wane ne ab jullit mas na koo moom mbaa yéefar buñ fasan teeloon wëllëre gisuñ ci menn màndarga ci loolu dañ koy daal jàppe àtteb rikaas ka nga xam ne moo ko far maanaam moo ci njëkk a yam bu ko defee juróomi xaaj day jox benn xaaj ba ilimaani jullit ña téye nag ñeent ña bul fàtte ne la géej gëq te gis nañ ca menn màndarga mu wane ne doomi aadama mas na ko moom loolu la ñu waxoon ne ku ca jëkk rek yaa ko moom te duñ la wax ne la danga koy def juróomi xaaj joxe benn xaaj ba ilimaan ja lépp rek ngay téye benn yoon loolu moo doon bi laa tax miisin wa illaa jam ca tegoon moom daa bëgg a wax wa illaa bi an xolima annahu li muslimin aw zimmiyin fa luqatatun yuharrafu wala yajuusu tamallukuhu ibtidaan xilaafan li baadihim bala noo génn dog boobu nu fàttaliku ne bu ñu nee mboolem xeeti miin yi maanaam mboolem xeeti mbell yi wul sa xaalis rek lañ cee war a génne asaka jàppal ne yooyu yëpp xam nga ne yu ci bari dañoo bari njariñ ku ko am di ko jaay njëgg ci boppam ca la asakay war bu fekkee da ko am rekk noonu bu ko jaayee bu jot ci njëgg téye ko ba daj ba def si déwén sa te mat nisaab asaka war ko ca bu fekkee da koy jënd di jaayaat it ne xeeti béton yi nga xam ne moom la ñenn ñi jënd di ko jaay ak lañ guñ wala yooyu yëpp moom xam nga ne marchandise la buñ tolloo ci waxtu asakaal dañuy xayma fu njëkk a toll asakaal ko na mu ware mu seetlu ne buñ dee wax naa nisaabi xaalis war naa toll nangam ci xaalisu CFA léeg-léeg nu wax lim bi bu ëllëgee nu wax beneen loolu nag la koy waral yomb naa xam mooy bu ñu nee xaalis bu sell bi nga xam ne moom la tëgg bi xelli di ci liggéey ay takkaay moom lañuy seet benn ngaraam ba fu mu toll ci CFA ngaraam boobee ñuy laaj tëgg bu ba xam fu mu toll moo saxul ci fenn léeg-léeg mu yéeg léeg-léeg mu wàcc loolu nag moo tax man nga koo seet tey seet ca nisaab mu tollu nangam bu ëllëgee nga seet mu tollu neneen nu bokkut ak noona waaye léegi si moom kenn ku ne bu ko neexee bés bu ne mën nay xam nisaabi xaalis ci CFA nu mu toll ak gën jaa néewi can ci xaalis CFA nu mu war a toll ak nisaabu sàcc bu fekkoon ne ñu ngi dagg ka sàcc lañ ko war a daggee bu ko sàccee nu mu war a toll ak diye sax maanaam ku rey nit mbaa mu gaañ ko lam ci war a fay yépp léegi bis bu ne mënees na koy xam tolluwaay ba te bu njëkk nag loolu jàpp ni wutoon noonu xëy na fàtte woon rek lépp loo xam ne yoon nee na jëmm ja asaka waru ca kako moom bu ko jaayee te njëgg ba waxtu ñëwaat ci déwén si tamat nisaab asaka war ca bu fekkee itam da ko jënd di jaayaat nga xam ne kon day yaxantu mooy day jaay ko jënd bëgg bénéfice it nga daal di seet ñaari xeeti commerçant yi ñu waxoon ku mu ca doon rek ñu àtte ko ca noona faslun li ab dog la wa masrifuha joxewukaayu asaka faqirun moo di aji ñàkk te mooy koo xam ne laayam liku du moom xuuta xaamihi dundub atam ma walaw malaka ak doonte amoon na nisaaban lu mat nisaab wa miskiin akub miskiin laayam liku mooy koo xam ne du moom chey an dara ñi nga xam ne ñooyoo asaka moom alquran da koo tudd ci jenn laay sësale leen inna mas sadaqaatu lil fuqaraay ba laay ja daanu mu jëkkee ka laay ji njëkke muy faqir aji ñàkk faqir nag mooy koo xam ne lam am daal dañ koo dunde ca at ma te it amul menn métier mu mu ko sukkandikoo amul it kenn koo xam ne moo ko ko gàddul kon kooku mënees na koo jox asaka doonte sax lam am ci alal mat na nisaab ni ki bu dee ci xaalis yor na lu mat nisaab ba ba mu bayee am na lu mat nisaab waaye xam nañ ne dañu koo dunde ci at ma rek mënees na koy jox asaka miskin nag bu dee ci ni waa Malik moom di waxee moo gën a loru faqir ndax mooy koo xam ne amul sax yorub tey amul dara dara waaye dañu wax ne léeg-léeg da nga gis koo xam ne am na dara te moo gën a mat a jox asaka ndax moom dana rus a jóg di laajaka yalwaan te nag miskin moom li ci ëpp day mën a taxaw ci bunt yi laaj bañ faj lorom moo tax kon dañuy wax ne ci teqale bi day mel ne faqir moo tax ne miskin waaye faqir daal ku mat di geesu la mooy koo xam ne daal loru na amul lu ko doy waaye nag ku am bañ ruus la di mën a taxaw di ko wax aka waxaat ñuy dégg waxaamilun ak aji liggéey alehaa ci asaka ja kasaahin niki aji laaj ja asaka wa jaabin ak aji dajale wa mufarriqin ak aji séddale walaw ganiyan ak doonte day aji woomal in kaana dem nekk na kullun kenn ku ne ci ñooñu xorran di gor musliman tey ab julit xayra xaashimiyin tey du ko jug xaashim maanaam tey du ko jug ku bokk ci banu xaashim mu teg ci la laaya ba ne wal xaamilina xaleha kay liggéey ca asaka ja moom it yelloo na ñu jox ko asaka doonte sax dafa nekk ku bari li alal ndax moom ci yooyu jamono bu ci kenn nekkul di ca laajaka séddalee ka toppatoo mu daldi laatu léegi nag moom kenn ku ne yaay farlu rek génn sa asaka joxe waaye mel ni amatut ku koy toppatoo waaye yooyu jamono ña daan toppatoo asaka ja moo xam ka koy laaj la moo xam ka koy dajale ka wattu ak ka koy séddale yépp dañ leen cay fay ak lu ñu barile barile alal waaye nag mu ne ñett ñi mu waxagun muy faqir ak miskin ak kookuy liggéey ci asaka ja bala ñu ko mën a jox kat ca asaka ja day fekk muy gor ndax jaam moom ab sangam muy boroomam moo gàddu ay mbiram te it muy jullit ndax asaka da di ak jaamu yàlla kenn du koy jox ab yéefar te it mu bañ a bokk ci mbokk yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ak moom Hachim Hachim mooy maamu ñaareel yonante bi yonante bi daa waxoon ne moom ak ay mbokkam sañu ñoo lekk asaka mbaa sarax waaye nag nee nañu ku bokki noonu ci yonante bi ñu dem dem nag ba baytu maal amatut mbaa am na waaye joxuñu ko ca kon nañ ko jox asaka ndax mu bañ a loru wa mu àllafun ak ku ñu miinal xol moom nag nee na kaafirun mooy aji weddi yàlla ñu koy jox asaka yu muslima ngir bëgg mu tuub wa raqiixun akub jaam muminun bari aji gëm yootaqu boobu def na ko goreele min haa ca moom laa xaq da